أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi suñu xutba tey mooy juróom ñeenti njuumte li lenn ci ay jullit di def ci tabaski juróom-ñeenti njuumte yoo xam ne lenn ci ñun ci ay jullit dañ koy def ci tabaski yooyu ba ci njëkk qawluhum inna shi'r al udhiya ghaaliya وقد خسرت فيها كذا وكذا wa baaduhum yaquluun kabsul iid kallafana alkathir lenn ci ay mbokki jullit ci période bi nu toll ba tabaski jot dañuy def ay njuum te fàtte tabaski jaamu yàlla la jaamu yàlla nag lu ci nit def ci coono ci yaramam ci coono alalam lu mu mën a doon perto lu tax parce que jaamu yàlla la jaamu yàlla bu laajee alal da nga koy joxe bu laajee bakkan da nga koy joxe mooy tuur sa deret yow sa bopp kon bu fekkente ne da ngaa jël sa alal dem jënd ab gàtt boo jegee yàlla boo xam da nga koo delloo yàlla loolu jarul jàmbat jarul wax ne vraiment ren tabaski dafa cher ren nangam laa dépassé pour ma am tabaski ren déedéet bul jàmbat yow da ngay jaamu sa borom kuy jaamu borom du ñaxtu doo keppetu di wax déedéet lu tax da nga bëgg sa kontante borom kon lenn ci ñun danañu génne xaalis dem ba ca barab yu ñuy jaayee gàtt ya daral ak lu mel noonu ñu jënd bu mat waaye du ñu am tiyaaba lu tax ndax ñaxtu yi ndax waxtu yi ndax kepetu yi ndax jàmbat te jullit buy jaamu yàlla du jàmbat maa kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasuluhu wa rasuluhu amran an yakunu lahum alxiyara min amrihim wa man yasi allaha wa rasul faqad dalla dalalan baida jullit buy jaamu yàlla du jàmbat ndax yow war a ut lu la neex mais li neex yàlla akub yonent ngay ut yàlla nee na warul jullit bu góor wala jullit bu jigéen ma kaana li muminin wala mumina isa qada allah wa rasuluhu amran yàlla akub yonent traché jël benn décision ne nii la lu la war mooy sami'na wa ata'na li nekk sa poos li nga tollool nga dem jënd ko tabaskee ko jaratul wax ndax yàlla tax ngay def wala kon boo tomb bu ci njëkk mooy lenn ñuy jàmbat xar mi cher na xar mi nangam di ñaxtu xanaa du yàlla ngay jaamu kuy jaamu yàlla su ko neexee daf koy def su ko mettee su ko naqaree daf koy def su seddee da ngay def bu tàngee da ngay def su guddee da ngay def bëccëg da ngay def soo wéree da ngay def boo feebaree da ngay def parce que jaamu yàlla la al ibada la kon bul ñaxtu ñaareel ci ay njuumte lu lenn ci mbokk jullit yi di def jënd xar ba pare yaquluun nuridu an nafraha biha al awlaad wal iyaal man de vraiment foog ma tabaski parce que sama sama doom yi ak famille bi pour ñu kontaan yow lu tax ngay tabaski innamal amal bi niyaat de li nga wax rek la la yàlla di fay dem bay jënd xar xar mi ñaata ñu ne la temps nga ni wàññil di waxaale gestu ki nga àndal wala nga ni ki la koy jaay waaye jaay ma ko waay nangam ndax sama doom yi kontaan perte nga perte nga doo ci am lu dul sa doom yi kontaan yàlla dootu ci kontaanati te lan moo la waroon lan moo la yóbboon kan kontaan moo la yóbboon allah subhanahu wa taala Moussa yonent yàlla Moussa yàlla daf ko woo ne ko ñëwal yaag banu Israil ci montagne bu tudd tuuru Sina Moussa di leen xaar ñu yéex Moussa dem bi mu yegsee yàlla mu ne ko anañu lu tax xaaroo leen mu ne wa ajjaltu ilayka rabbi li torbo yàlla dama gaaw ñëw ci yow ndax nga kontaan ci man moo tax xaaruma leen jullit kontante yàlla moo ko war a yittil waaye du kontante doom du kontaante jabar du kontaante famille du kontaante dëkk bi li la war a animé mooy kontaante yàlla moo tax bàyyil xel bu baax léeg-la nga gis ab tubaab bu ñuul dugg ci kaat-kaatam jabar ji ci kanam doom yi ci ginnaaw dem ba deral ba wàcc nekk ci ginnaaw croiser a bara jabar ji jiitu doom yi topp ci jabar ji moo naan ko nijaay xoolal bii doom yi ñoo naan ko papa xoolal bii moom ci ginnaaw rek lay nekk lu muy wax xool leen bu leen kontaan loo rek ma jënd ko allahu akbar tey jii loolu moo ñu jàpp ñun ñëpp sénégalais yi ñenn ñi fàtte nañ ne tabaski yàllaa ko moom lan la ñuy wax sama doom yi nar nañ ma mere ren amaguma ba léegi tabaski ah kon tabaski doom yee ko moom jëndaguma ba léegi xaru tabaski xam naa sax ren moom la sama sëy di tas yenn saa yi sax nga dégg ñu ci def ay ay slogan xar wala xaru xar wala xaru xar rek wala xaru boo indiwul xar xarul waaw loolu moom xanaa léegi nekkatul jaamu yàlla laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha amoo jeex na mais jamais da ngay gis waa ji amul dana dugg ci lu nekk pour tabaski fen triande wuruj dóor mart sàcc pour tabaski loolu njuumte la boo xam ne lenn ci mbokk jullit yi danañ ko def mooy fàtte tabaski yàlla ko tax a jóg waaye du kontaan loo doom yi du kontaan loo njaboot gi fexeel ba yàlla kontaan après xale yi fexeel ba yàlla kontaan après soxna si fexeel ba booy jënd sa yéene bul ko fàtte damay jënd gàtt bi pour jege ko yàlla tabaski loolu lay tekki lugatan mooy xar la bu ñuy rey taqarruban ila allah pour jege yàlla jege yàlla ci lan deret ji kawar gi yàpp yi lépp lu nekk ci moom yaa ngi tuur deret bi pour jege yàlla amma pour kontaan loo say doom amma kontaan loo say mbokk say soxna loolu da ngay perte moo tax fokk ñu yeesalaat yéene yi ñetteel yatrukuna shiraa al udhiya xawfan min annaas ñetteelu njuumte léeg-léeg nga gis kenn ku am doole daane man de vraiment bugguma tabaski wala damay dem rek jënd nangam xar moo xam ne waa ji moom am na ñépp xam nañ ne borom doole la waaye léeg-léeg mu ne damay daw ngistal ngistal laay daw bëgguma nit ñi gis ma ba day dem di buuxanteeg miskiin yi ci xaru cinquante mille yi xaru soixante mille yi te moom xaru deux cent mille la war a rey mu fàtte aaya bi fal yunfiq zu saatin min saati wa man qudira alayhi rizq nag fal yunfiq mimma ataahu llah nit ñi duñu yem yow ni nga toll noonu la la yàlla wax nga tabaskee waaye li tax waa ji dugg ci erreur boobu mooy damay daw ngistal bëgguma nit ñi wax ne xar mi ma rey déedéet yow xar moom nga rey moom nga tollool ndax yàlla nee na kenn ku nekk ni nga toll reyal loolu ni nga toll yàlla nee na ku ñu yaatalal fal yunfiq zu saatin min saati ku ñu yaatalal may la alal génneel ci sa alal boobu nga delloo yàlla jukkal nga jënd xar mi nga tollool nga dem nga rey ko kenn ku nekk ci ñun xam nga nu ngay dawee ngistal waaye lenn ci ñun mbokk jullit yi ci seeni jaamu yàlla ñun waa Sénégal lu ëpp ci ñun ñun dañuy lànk jaamu yàlla fokk ngistal am ci lu ëpp ci ñun sunu jaamu yàlla yi fokk ñu ne gis leen ñu xool leen ma da ngay gis ku jënd xaru tabaski jouru tabaski genn wàll gi ñun ñu toog ci jumaa jëpp suñu xëyee suba balaa ñuy ñëw ci jàkk ji xar mi dañ koy génne sang ko takk ko fan loolu laaj la bu ma leen laaj fu ñu koy takk ci buntu kër yi lu tax mooy xool leen sama xar lu tax de bàyyi woo ko fi nga ko doon denc lu tax bàyyi woo ko ci biir gétt gi beneen bi lu lay wan ne gars yi dañuy ngistal moo tax xar yi ñu takk ko ci buntu kër gi kenn ku amoon ci ñun béy doo ko takk foofu da nga koy nëbb dina la jaral sax nga takk gémmiñ gi balaa mu yuuxu nit ñi xam ne diw béy la tabaskee allahu akbar pourtant béy ci jaamu yàlla bi la bokk dañ la ne soo amul lislaam xam nga dafa bëgg lu yomb moo tax mu tàmbalee la ne la am kuy foofu lañ la tàmbaleel amoo ñu ne la béy amoo gis nga ñuy wàcc ci xar yi ba pare kuy xar bu jigéen tàpp ñu ñëwaat ci béy parce que amoo lool nga tollool ndeysaan benn tabaski seyduna muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa génn daal di dajeeg bilaal mu ne ko bilaal ndax tabaski nga na ko waaw mu ne ko bilaal loo tabaske mu ne ko séq yonent bi daan ne noddukat bi tabaskee na noddukat noddukat ba tabaskee na noddukat xam ngeen ne séq day noddu fajar yonent bi daal di dóoral boobu bilaal ne ko noddukat bi tabaskee na noddukat xoolal séq lu tax xam ngeen lu tax ñooñu ngistal ak rëy dafa deñ ci ñoom lépp lu ñuy def yàlla tax ñun nag sa waay man kay bu ma naree jënd béy jar na bañ a tabaski xoolal jar na bañ a tabaski waa ji denc lu jënd béy cinquante mille jëm kaw nga xam ne loolu jar na béy mu ne non non béy du ma ko jël di ko dugal ci koñ bi yooyu béy du ma ko jël di ko dugal ci kër gi ana yàlla ayna allah moo tax ma ni dafa am ay njuumte yu bari yu nekk ci ñun foog ñu defaraat ko bu fekkee yàlla rek rek moo tax ñu jóg waaye bu dee dañuy ngistalu nag acca bismillah parking yaa ngoog nanu dem waaye yàpp kese la ñuy am duñ am yàlla te nag ab jullit moom lépp yëngatoom guddi ak bëccëg yàlla rek la war a doon boo déggee diine nga moytandiku bu baax ngistal nga moytandiku bu baax dugg ci loo xam ne waroo cee dugg ñeenteel ci ay njuumte yu ñuy dal shiraul udhiya lil mubahat wal mufaaxara alal axirin am na ñoo xam ne dañuy jënd xaru tabaski lenn taxul ñu koy jënd lu dul ngistal ak puukarewu ak wanewu dem ba ci jaayukaay ba fekk fa xar muy jar 2 millions xar moo xam ne ñu ngi koy publicité ci journaux yi di ko wane ci télé yi nga jënd ko bëccëg dugal ko ci benn oto ñu indi ko ba ci tali bi wàcce ko nga yeew ko ci bundu kër gi fukki fan pour rek di wane ne koñ bi moom man du ma moroomu gaay ku ñëw ne la sa xar mi nga oh waaw sa waay moom nga na xam nga man du ma moroomu gaay ñu bëri ci ñun tabaski loolu moo leen ci dugal wonewu man nii laa toll man nii laa mel di rëy rëylu jënd xar boo xam ne daanaka boo sàmmoon xaalis bi boo ko sàmmoon tasaare ko xaru un million xaru un million ñaata xaru cent mille nga ci mën a am pour dimbali ñeneen ñu amul xoolal instant yi du ma toog trois jours yu dul nit dina ñëw sama kër imaam amaguma tabaski imaam na ma waa jàkka ji jàppale ñaata ci ay miskin tey ñaata ci ay mbokk julit nga gis gars yi di xëccoo ay xaru 5 millions xaru 4 millions ay xar yu ñuy publicité ci télé ay xar yoo xam ne dañ koy yéegal ci benn podium gars yi ñëw ran bu kii ne fay naa 1 million kii ne 2 millions kii ne 3 millions kii ne 4 ñu seet kan moo ëpp doole ci ay jullit ñu ne dañuy jaamu yàlla mbokk yi bu ñu nax suñu bopp olof yi dañuy wax ne ku noppi nax sa bopp sa aajo faju munuñoo muus ak waane wallahi ba def loo xam ne yàlla xamu ko yàlla subhanahu wa taala xam na li nekk ci xol yi rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura yàlla xam na li ci dënn yi dafa am benn waay dafa amoon yaay mooy toggal yaay ji moo koy sang moo koy lalal moo koy defal lépp lu tolloog ñeent fukki at lépp moo koy defal yaay ji mu dee yàlla mu ne jibril yóbbu leen ko safara malaaka yëpp tiit waaw kii ak niñ ko xamee li mu liggéeyal yaayam ak li mu def ci lu baax yëpp yàlla mu ne nañ ko yóbbu safara parce que yàlla moo xam yàlla moo xam fii li fi nekk ñun ñëpp ku nekk da ngay rafet njort ci sa bopp waaye yàlla moom mooy contrôler li nekk fii malaaka yi dañoo sujjóot ci kanamu yàlla ne yàlla kii moom dañ lay laaj balaa ñu koy yóbbu safara lu mu def ba pare yàlla mu ne lan ngeen gis waa ji lu mu def ba ngeen may laaj ñu ne kii da doon liggéeyal yaayam te yow yaa wax yow yàlla ku liggéeyal way juram day dugg aljanna yàlla mu ne lan la def ba ngeen ne dafay liggéey mu ne moo doon fóot moo doon togg moo doon raxas moo ko doon sang lépp moo ko doon def waaw yàlla mu ne yéen li ci kaw rek ngeen gis gis nga bu defee loolu ba pare malaaka yi ne ah mu ne day wax allahumma xuzha wa arihni minha yàlla waay waay sama yaay na dee ba ma noppalu waay cër yaa ngi liggéey waaye xol bi mu ngi wax ci biir naan kii na dee ba ma noppalu loolu la ko yàlla fay cër yi rek mooy def mais xol bi nanguwul kon mbokki jullit yi nañu xool bu baax suñuy mbir suñuy dugg suñuy génn laa yambaxi du jaadu ci ab jullit dem di jënd gàttu tabaski di tiitaru wala muy wanewu wala muy ngand ngandulu lu lu gën a yéeme sax mooy bàyyil xel miskin yi nga nekkal te amuñu même boo ko jëndee bàyyil ba yenn waxtu yi nga jënd ko dénkaane ko fenn bàyyil ba mu guddi nga wàcce ko dugal ko ci biir yeew ko bu guddee bisub tabaski ca fajar bul ko génne mooy tandikul génne ko di ko takk ci mbedd da ngay man su ma génnee suuru tabaski di ñëw jàkk ji damay yéemu damay gis xar yi ran mel ni ay équipe football yu jàkkaarloo lu ko waral mooy ngistalu rek sunu diine yépp loolu moo koy yàq ak wanewu ak rëy ak jaay maanaa ak kenn ku nekk di wane lii laa toll nii laa mel yàlla na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla na nu yàlla woon neen mu wërsëgal ñi ñu sori ko alhamdulillahi waxda wala nacbudu gayra muxlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ibad allah النقطة الخامسة الأضحية عبادة وليس عادة tomb juróomeel ci ay musiba yu ñuy def ay njuumte mooy jàpp ne tabaski aada la defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal yàlla année bu nekk danaa rey aada lañ ko def aada tabaski du aada tabaski ibaada la jaamu yàlla la du aada tabaski mbokk jullit yi ñu bari ci ñun dañoo jàpp ne aada la ndax saa yu weer yu ñëwee rek su at bi ñëwee ba weer yu ñëw ñu daan dem jël gàtt rey jeex na ndeysaan yow daaw tabaski woon nga waaw tabaski woon naa kay ah ren kay te waaw dinaa tabaski waat yow daaw nag man kay déedéet tabaski wu ma ndeysaan aada rek lañ ko def aada aada mooy lu nit ñi tàmm def ndekki suba añ midi reer guddi aada la tàmm nañ ko loolu nag bu fekkee ne looloo tax ñuy tabaski amatuñu yàlla ndax tabaski du aada mais ibaada la loolu ñu war ci bàyyi xel bu baax fekkoon nañ suñuy maam di ko def suñuy maam buñ ko jëlee ci yonent bi yonent bi fan la ko jëlee ca baay Ibrahima rek ndeysaan ñun loolu lañ jàpp waaye xam ngeen ne Ibrahima la taxoon muy tabaski mooy sant yàlla yonent alayhi salaatu wasalaam bépp yonent bi ko yàlla yónnee bépp yonent bu mu ñëw fekk def nga lu baax yonent bi roy na la ci sunna soosu nga def ndax lu baax du doy li tax mu doon woor ashura ak tasua xam ngeen ko yàlla moo dimbali Moussa labal firawna Moussa woor ko sant yàlla yonent bi mu ñëwee Madina mu fekk yahud di ko woor mu ne leen ana awla bi Moussa maa leen gën a yey ci Moussa mu daal di koy woor bi mu ñëwee fekk baay Ibrahima doon tabaski doon sant yàlla ndax yàlla da ko doon reyloo doomam mu nangu yàlla di ko testé mu réussir muy sant yàlla ci loolu yàlla jël sunna boobu jox ko yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam moo tax anas ibnu malik nee na daha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi kabshayni amlahayni aqranayni zabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima anas nee na yonente alayhi salatu wasalaam ba muy tabaski ñaari kuy la rey bi kab sayni am la xayni yu am béjjén yu am ya yu am yàpp yu duuf aqranayni yu am béjjén ñaar la rey benn bi mu ne man ak sama waa kër beneen bi mu ne képp ku amul ci umma muhammad tey dugal naa la maa ngi lay tabaskil sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo rendi gàtt bi ci loxoom tedd bi nañu fàtt bu ñu fàtte xarum tabaski ku koy rey da ngay tudd yàlla lépp lu ñu rendi tudduñ ci yàlla loolu araam naa lekk képp ku tëral sa xarum tabaski naan ci barke sëriñ diw ci barke Moodoog Demba xar moomu araam naa lekk xar kenn du ko rey ci barke kenn hatta turu yonent bi sax doo wax ne maa ngi koy rey ci barke yonent bi nan jàng nu ñuy jaamoo yàlla bismillah allahu akbar allahumma inna hada minka wa ilayk noonu la ñuy rendee xarum tabaski bismillah allahu akbar nga daal di koy rendi suñ koy rendi dañ ko war a téye mu dëgër ñu ñadd ko paaka bi ñuy ñawal ko léeg-léeg nga gis benn nit di rendi benn xar benn nit benn nit wala indi paaka boo xam ne daanaka moo sengayam di xaras xaras wala nga gis kuy rendi juróomi xar rangale leen allahu akbar ci ñàkk yërmande dañ ma mës a invité ci benn programme diine ci dëkk yu sori yi la bi ma demee ba yegg ñu fanaan bu bët set maa ngi gis benn waaye mu ngi yenu benn benn benn béy mu ngi koy yenu nii di dem am kenn ku topp ci ginnaawam yor paak ñu toogoon ne ko diw foo jëme béy bi mu ne alaaxira ci ñàkk yërmande yonent bi ne na rafetal leen lu nekk même bu ngeen di rendi na rafet saxaaba yi ne ko rendi nu muy rafete mu ne paaka bi na ñaw xar mi ngeen ñàdd ko ngeen rendi ko mu teel a sedd mu teel a dee mu teel a noppalu imagine loo xam da nga koy rendi daggul nga demaat ñawal paaka bi ñëwaat rendiwaat ñawul nga ne jox leen ma beneen paaka loolu bu doon nit la fu mu jëm wala bu doon ay nit la ñuy rendi ñu rangale leen bu ñu rendee première bi deuxième bi xam ne mooy ñëw loolu nu nuy ndebee moo tax kenn du rendi ay xar di leen rangale ñu jàkkaarloog yow nit ñi dañoo war a am yërmande xam ne li ñuy def jaamu yàlla la du soxor du wane ni nga mel du wane ne mën nga waaye jaamu yàlla la nañ fexe li ñuy def mu nekk jaamu yàlla mbir mi ngay def bu ci yàlla génnee rek perte nga ay aada ngay am musiba dal la nga perte alal perte lépp ba pare jële ci bàkkaar bokk yi ci yàlla tabaraka wa taala tabaski jaamu yàlla la waaye du aada loolu mooy juróomeelu tomb juróom benneel tanbih anna baadu nnaas yastari l udhiya aw il kabsh min ajli l musaaraa wa tahrish bayna hatihi l an'am allati lam tuxlaq li misli hada tey saa nga gis koo xam ne day jënd xarum tabaski ba pare di ci bokkaale yàlla jënd xarum tabaski di ci bokkaale waaw ci der bi ci kawar yi ci wey yi ci put gi ci deret bi bi ci gën a doy waar mooy jour bu ñuy rendi xarum tabaski nga gis yenn ceddo yi ñooñu moom ay ceddo lañ borom kër gi sëgg di rendi jabar ji ñëw teg ko loxo taaw bi ñëw teg ci jabar ji ki ci topp teg ci taaw bi ñu ran jëm buntu kër ga soo waxee waa lii nag ñu ne yowmal xiyaam ñun ñëpp ci xar mi la ñuy yéeg mu jéggil ñu siraat xar mi daneen attan yowmal xiyaam yàlla nee na ci xar mi la ñuy yéeg mu jéggil ñu siraat beneen bi da ngay gis jour jouru tabaski jour bu ñuy rendi xar bi nga gis ku ne indi satala yow ñu indi satala mu ne bismillah jàppal ko xar muy jàpp ci Sénégal dañ nga koy gis kuy muy jàpp dañ koy jàppal suñu benn waay fii la daan julli si jumaa fii la daan toog dafa mus a jàppanteeg papaam jour tabaski jógee jumaa ñuy rendi xar bi rek góor gi mu ne ko indi satala bi mu ne ko papa pour lan mu ne ko day jàpp xar mi la ñuy jàppal parce que dañ koy rey mu ne ko papa loolu bidaa la mu ne ko waaw léegi xar mi sama xar la wala sa xar la mu ne ko sa xar la mu ne waaw bismillah kon bismillah paa bi jël satala bi commencé jàppal xar mi ba yegg ci tànk càmmoñi xar ma saw mu ne ko papa sa ñàpp mi toj na de allahu akbar xar xar moo xar nu muy jàppee xar loolu mooy jënd xar di jaamu yàlla di ci bokkaale boobu sax jàmm la ñaar yi ma wax yëpp jàmm la waaye xoolal ndeysaan ñuy rendi xarum tabaski ñu rendi ko ba deret ji dem nga càpp deret ji di ci sa jë deret yéen ñëpp jàng ngeen ne deret sobe la deret boobu di génn ci xar mi sobe la su la laalee lu ëpp juróomi dërëm da ngay jàppiwaat su la laalee ron bu ëpp juróom sa njàpp yàqu na nga gis nit di ñëw di ci cap xanaa xamu ne ne deret mbirum jaamu yàlla la ba tax boo amee doom ñu ne la tuural deret nga am gan ñu ne la tuural deret tabaski ñu ne la tuural deret jaamu yàlla bu i ëpp yëpp ñu ne la tuural deret yàllaa ko moom yow nga jël deret di ko cap jël put gi denc jël yeel yi ne danga koy reere ji tam xarit wasan ko daal di koy aj ci liñ denc ko ne tam xarit la jëm yooyu yëfu ceddo yooyu ak bokkaale yooyu yëpp da nga koy gis ci xarum tabaski béjjën bi li ci gën a doy waar nag mooy fi mu nekk nii xoolal bunt yi ubbeeku na télé yeeg rajo yi da nga ci gis ustaasu ceddo yi am na ustaas yoo xam ne ay ustaasu ceddo lañ ndax dañuy boole diine ak xërëm naan la gis nga kawar gi kawaru bopp bi benn ngénte laa dem ma fekk fa comme ñooñu may wax noonu ustaasu ceddo mu naan gis nga kawaru liir bi na ngeen ko denc de bu ngeen reppee ba picc for ko la ilaha illallah xale bi waaye picc lu muy fore kawaru liir di terroriser waa kër googu lu tax ñàkk jàng kawaru tabaski yeel yeeg tànk yeeg amul lenn luñ ci def dara lu dul lépp yàllaa ko moom lépp yàllaa ko moom kenn amu ci dara yow sa bopp amoo ci dara waaye dégg génneel leen ma putu xar mi putu xar mi moo ko soxla damaa soxla béjjënu càmmoñ bi béjjënu ndeyjoor bi damaa soxla weewu tànk sangam damaa soxla loolu pour lan la tukulóor yi nee nañ allah du sotawino ina nafa ummataa koy xoore joomum su fekkoon ne béjjën dana jëriñ du jóge ci bopp borom loolu ñun ñëpp war nañ koo xam mbokk jullit yi ba tey ci njuumte yi nga xam ne dañ koy def ci tabaski ginnaaw juróom-benneel bi juróom-ñaareel mooy juróom-ñetteel bi ñu tolloon mooy ñenn ñi ci ñun dañuy dem jënd xarum tabaski waaye bañ koy jënd lan mooy seen yéene man kan ñaari jabar laa yor ñett kon foog ma jënd ñetti xar jëndal naa sama aawo jëndal naa ñaareel jëndal naa ñetteel bi jëndal naa ñeenteel bi léegi yow ana sa xar ba nga nee jëndal naa diw rek yow sa yéene yàlla fay na la ko loolu kon yooyu yonente ne kër gu nekk benn xar doy na leen kër gu nekk maanaam famille bu nekk benn xar doy na leen famille bu nekk su fekkee nag mën nga dañoo nekkut ah alhamdulillah mën nga ko nekkuñu mën na nekk waaye buñ nekkee jarul puukëre jarul wanewu jarul def leen fexe leen ba ngeen def li nga xam ne moom la yàlla subhaanahu wa taala santaane ñu góorgóorlu ci bu baax xam ne ci guddi yu bëccëg yu am importance lañ jëm ba yàlla di ci giñ ci alquran naan wal fajr wa layaalin ashr wa shaf'i wal watr wal leyli isa yas bëccëg yu am importance mooy fukki fanu tabaski bis bi gën a màgg ci bis yi ci la nekk mooy yawmu arafa ma fàttaliwaat leen foofu na ngeen fexe ba bis bu ñuy woor arafa ujaa ji nekk makka ñu ne tey la arafa yéen na ngeen ko woor bu leen toppandoo waa Sénégal waaw ujaa ji de ña nga taxaw arafa tey nga naan man suba laay woor waa Sénégal amuñu arafa de arafa makka la nekk kon ujaaji bu ñu taxawee bis boobu mooy bisu arafa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa sunnaal ci ñun ñun ñu woor ko ñun ñi nga xam ne aji wuñu waaye ñi aji moom duñ ko woor kon fexeel fukki fan yooyu di fukki fanu tabaski jaamu yàlla yépp a ci daje julli koor jàng alquran saraxe aj fukki fan yooyu lépp ci daje ci lu baax lépp loo mën ci lu baax ci fukki fan yooyu na nga ko def musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men muhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam khutba men hannde wonno won geɗe bandiraɓe julɓe ɓe eɓe waɗa ɗum kono ɗen geɗe ko ɓuri hen heewde wonani e diine allahu subhanahu wa taala yamirani yimɓe ɗum yimɓe ɓe yo wat ɗum ko adi hen woni soodde jawdi layya cooda ha gayna joɗɗa aɗa aɗa haala aɗa jangto ko mbatmi hen ko aɗa wayno ka nimsowo ka nimsuɗo ko coɗirɗa ndi ɗo jawdi ko meta anda ko allah tagno aɗa waɗa so tawi ko allah tagno jarani aɗa nimsa jarani aɗa haala saabu ko allah yoɓanma gueɗal rewguel hen woni al amalu saliha ganden gueɗe moƴƴe ɗe allahu subhanahu wa taala ƴettata ɗum koye anniya sa yeehi aɗa sooda oɗo wi mbiɗa sooda saabu sukaɓe mbiɗa sooda saabu debbo mbiɗa sooda saabu ala sood saabu allah yaltina hen ɓesgu ma yaltina hen ɓiɓɓe yaltina hen rewɓe yaltina hen bandiraɓe sood saabu allah ko rewi hen woni ko ɓuuri hewde men en coodat jawdi layya pour hollude ɗum yimɓe ɓe ala jawɗima hollu allah oto hollu yimɓe wona yimɓe codanɗa holmo codanɗa ko allah sen ndewi gueɗe ɗe ma timmu gueɗe jeenayyi ɗe ganduɗa eɗen golla ɗum te bonna dewal men allah jamma e ñalawma surtout noon e nduɗo lewru gonɗen ganden koye lewru taski paaɗen ko ɓuuri hewde men ina layyo kono ɓe dañata allah tew tan ɓe dañata ɓe ñama ha deedi mabɓe keewa kono allah kam ala hen holko tagui saabu ɓe kollan ɗum allah ko yimɓe ɓe kolli allahuma ihfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wala tuazibna bada al maut birahmatika ya arhama arrahimin اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله